mosta bind ci rafetaay ci wér defe ko ci baxru xafiif bi bu sëyri yu defee woon xamsiyam ba boobu nag mi ngi toll ci maa ngi waxoon ak yow ci buntab xare yi te waxoon naa la ko léegi baabun fi zikri xasawaati nabi sallallahu alayhi wa sallama te xareem yëpp ñaar fukki xare la ak juróom-ñaar am ci yoo xam ne dañ koy tuddee ñàngal buñ ne ñàngal nag mooy yoo xam ne moom dafa xeble rek dana ko wax ñàngal ya am nañu lim ko waaye ci ulamaa wu séeréer ci wuutee yëpp xalifa jàngal nañu ko xare yi tamit ak wuutee am nañu jàppoon ne ñaar fukk ak ñeent la am na ñu wax ñaar fukk ak juróom am na ñu ne ñaar fukk ak juróom benn maam xalifa ne bi ma ko seggee ñaar fukk ak juróom ñaar daal moo dal sama xel weddihuma nag keneen weddihuma leneen xare yi yëpp maam xalifa ne da koo xeexee ci ñi dal ci kawam mu attaqué boppam xare juddu walla ñu tooñ ko mu fayu xare juddu waaye amul benn bu mu jug moom di tooñ di dal ci kaw nit moo tax ñuy wax ne ah, lislaam dafa taxawee ci jaasi dañoo juum li xare yonantu bi yëpp li ci dee ci ay nit boo ko doon calculer ñeenti téeméer yu teg tuuti la première guerre mondiale ñaata nit a ca dee deuxième guerre mondiale ñaata nit a ca ña ca dee attaque bi Amérique attaqué Irak ñaata million ca dee bomb bi ñu sànni woon Nagasaki ñaata ca dee yeneen guerre yi am tey ci wàllu raso ak ci waaso ak noteel ñaata ca dee ay millions yi millions yi nit. te yooyu yëpp xëccoo alal xëccoo nguur xëccoo daraja xëccoo suuf moom miim nag xareem yëpp dañ koo tooñ wala ñi tooñ ko muy fayu wala ñi dal ci kaw mu défendre te lépp xëccal lislaam la ak taxawal taxawal diine ndax ñi ko gëm liñ gëm lu dëggu la lu wér la lu bàyyi ko ci yàlla di leer ñeneen wet dina du gën ko fi dundee dal ci seen kaw ñu défendre seen bopp ci lay xare yëpp juddoo wala ñi tooñ ko mu jug di fayu xare yooya nag maam xalifa ne xasawaatu nabi xare yonantu bi sabon juróom-ñaar la wa ishrun ak ñaar fukk muy ñaar fukk ak juróom-ñaar vingt-sept atat dikkee na wala nga ne bi xulfin ci xuutee ate atat dikkee na bihi ci xuute an baawu solo yi xare yooya ñaar fukk ak waaye terewut am na ñu ne ñaar fukk ak juróom am na ñu ne ak ñeent am na ñaar fukk ak juróom juróom amna ñu waxtu bi leen dudd loola way man mam khalifa dal bima segge mbiri seggantal ko ju ñaar fuk ak juroom ñaar la tan wa ma way xeexam boko ko xam inturit boko ko namee xam buat mu euh, ci xaree ya la hun nak fa usayru usayru ci xaree ya la wa qablaha njekna usayru buat euh, abwa mo ci jitu dana la ko farañ su ko defé timit gannaaw mm, xare yooya suma safwan ci suma badrun top badar ci xaree la wa fiha ci badar siida la yëkkateef albinaaw tabax ba li diini ñeel diini ñi yëkkatee ko bi suyoo fi ci sababu jaasi jaasi yee nag jaasi fayu la dañ leen a nangu seeni alal génnee leen makka fayu di dabi seen alal jooja ak di dabi ki ñu leen seen ak fayu ba ci badar googu danaa ci taxaw ak yow lu gannaaw bi ma la tuddalee xare yëpp dinaa taxaw ci badar ndax mooy xare bi ëpp victoire ci jullit ñi ci la raayaay lislaam yëkkati ba péncam yàlla dootul daanooti xare bu mel ni moom ci ngëneel amul benn bu ko niru lu dul xudaybiya ngir bayatu ridwaan nga ca xew waaye terewut sax bee ko ëpp doole maam xalifa ne gannaaw xare yooyu ma wax la Ah. Ah, ma limal la xare yooya Suleymun ak Badar ak ya ca xaju amaan na ca xare xare bu ñuy tuddee zu imrin moo tax mu ne suma zu imrin topp zu imrin kasaa naka noonu uxudun ca xare ya la xat naa la xamee na fii ci uhud ashuhadaa way shahid ña luñ ca amee shahadata ak shahid ci la bàyyi taxam ba xamsatu ci lañ ko reyee xare bu tàng la ci dañu damee sell yonantu bi xaañ ko ci la seytaane siiwalee woon ne rey nañ yonantu fekk xamut fa nadiru nadir ci xare ya la ruqaaxun ruqaax ca xare ya la dawmatu jandal ca la fal mustaliqu ca la xandaku xandak ca la alxasinu mooy tataja waqaawu bay aji fekk kon nag tata tata ja moom moom mooy xandax biñ gasee dëkk bi wërale ko danaa ci yegg si ci xilaatab Salmaan al Farisi moo tax mu ne nga ne alxasiisu mooy alxasinu mooy tata ga waqaawu bay fegalaa kon yooyu yëpp maanaam ca ca xare ya la xare yaa ngay dem yu bëree bari la yonent bi def ko ngir taxawal dëgg jaamaarloo ak xéefee yi ne ko doo ko fi dundee su ma jaawoo topp dikkal nañ quraysata bani quraysata ci xeex fa banu lixyaan dikkal nañ leen ay yahud lañ waadi qura dikkal nañ ko xare xare la moo tax mu ne waadi qura waadi qura kasaa naka noonu jaawoo dikk nañ ca kon quraysata ak banu nadir ak banu lixyaan ak waadil qura yooyu yëpp ca xare ya la fa xudaybiya xudaybiya ca xare ya la فغابتهم سن غابة مموي قط بقرلا خيبر خيبر تقريلا فالفتح طب فتح مكة تقريلا وهو موم عمري جنا سما دبنا المنامين ببدلا لا إلا وحد رفع قريلا يب فتح مكة كتهون جب كرب مكة هبيكو تلا بنت يب هبيكو كلا ينون تبنا لا هجرة بعد الفتح جدا يا حمتو فتح مكة moo tax gannaaw bi fatu màkk xasee am rek ñëw jaar jàllale rek li ci des yëpp dafa yomb moo tax maam xalifa ne mooy mbébét ma fa xunaynu xunaynu ca xare ya la taayifum taayif ca la umratun maanaam muy umratul qadawi moom de arduha suufam sa xaraa u aji tàng la xare bu metti la woon ba dem sax ñu bari dañ leen noonu laa tanfiroo fil xar bu leen tey dafa mbooyoo bu leen génn mbooyoo mi dem di xare ji yàlla ne bu ngeen bëttut mii dangeen dem safara te kenn mënu ci dara lii mooy ñaar fukki xare juróom-ñaar yi moo tax maam xalifa ne ñaar fukk ak juróom-ñaar yi le xadara teewe na al Mustafa kuñ tànn ka bi haasi ci yile jamian bi mu mboole seen mbooleem xare yi yëpp teew na ca yanzilu mbir momu di wàcc an nasru nimbal haythu kana fum fa nehe di liwaawu drapo ba rek ndimbalam di wàcc ndimbal ak yalla di sotte ko seen kaw ndax batam nasru foko fek ci alquran rek ismu jalal lay handak wa man nasru ila min indillah ida jaa nasrullahi in tansurullah yansurkum do hand surukum kenn mu foog mu xànd ismu jalal mam khalifa nak amna yenen na yeneen ci biir xare yële di ñaar fukk ak juróom-ñaar yu mu bokki jaasi xeex waaye ànd ak loolu kenn nit la mos a rey ca Uhud muy Ubay ibnu Xalaf mi maam Xalifa doon wax ne hala badata qablahu bi nukuri ala abi jahlin raisil kufri suma tura musanniyan bi ibnil xalaf abil maqtuli xaqan issadaf kooku la mosa ray de te yonantu bam koy wax dana maa koy rey sax booba gudd yag na lol ba xare ba jotagut moo tax mu ne suma ma top boccina asyufa jasiya fi tisi qasawatin jurum xare ci la bi bokki jasi xex tufri mbir momu jasi yooyu ña ngay luy dag tufri dana dag fa ñaw ka ya lu ñuy dagg hëmala addu wi kaangam bopam non ba waye non yalla ca namu moom daal fu ñu boccee jaas yi saxaba ya bocci jaas yi ñuy xeex ñaw koy jaasi yaa ngay dog maanaam bopp xéeféer ya yan xare ci la bokki jaas yi mu ne sàll bokki na jaas yi fil fathi fathu makkata wal muraysi xaswatu muraysi bokki na jaas yi badrën badar bokki na jaas yi xii na xaafat wax xaanat la war a doon waaw téere bee ko yàq ci naasix bi waaye naasix bi moom lu mu wax wér na wér na xëy na xaanat waxtu ba nga xamee ne xoor na asqiyaaw ñu texe di ña maanaam at muy muy muy muy Qurayzata banu Qurayza banu Qurayza bi ñu xoree yonantu bi ci kóllëre gi ñu façon ak ñoom keroog yonantu bi bocc na jaasi kon da wax ne xëy na xaanat waxtu wa nga xam ne xor na Qurayzatu banu Qurayza al asqiyaaw ña di way texeex ji keroog yonantu bi bocc na jaasi xeex. Uhudun Uhud bocc na jaasi xeex ci lañ demee sellam ba. xaañ ko daane ko ca kàmbu ga ci la reye umay ubayum nu xalaf xaybarun xaybar bokk na jaasi xeex fa xisnu saqiif tataay saqiif ja bokk na jaasi xeex xiinal taqaa waxtu wa dajee xuranaawu noon ya fil xandax ca xandax muy axsaab xaswatul axsaab bokk na jaasi xeex fa xunaynun xunaynu bokk na jaasi xeex waadil quraa bokk na jaasi xeex fa nu dayru na dayru maanaam fa nadiru nadirun bokk na jaasi xeex waaye wee tax mu tasxiir ko xaabatun gott ba a palaas la bokki na jaa xeex xalifa ne tammat mat na tisaatun juróom-ñeent yi nusaraaw ya di way ndern mooy ya di way niroo juróom-ñeenti xare yile boo ko génnee ci ñaar fukki xare ak juróom-ñaar juróom-ñeent yi la ci bokki jaa si xeex su ko defee ya ca des bocciwul jaasi xeex ca wasaraayaahu ñàngalam ya mooy yi nga xam ne fa xeble rek waaye demut arbauna ñeen fukk la wa sabun ak juróom-ñaar am nañu wax juróom fukk maam xalifa ne lii laa tànn de defal na ko téere spécial tuddee ko saqiratul ataaya fil wufudi wa saraya façon fànn googa moom kenn moo ci masa eh, taalif téere ci nit ku ñuul ak ku weex mbooleem rasaayil yonentu bindoon buur ya leetar bu ne fu mu mujj wax na ko ca mbooleem ñàngal yi de ñam xeble woon ak la ca xew fañ mujj wax na ko ca defil ko fànn goo xam ne mustaqil la taalif ca moom kenn ko mos a def ci siira moo tax mu ne asbatat na loolu ma wax la xudamaa wooy jiituñu fi siirati ci siira de lii mooy mooy njàngal ya su ko defee nag moom yonent tubeek boppam am na ay xaj yu mu def mam khalifa ne hajja hajna min qabli hijrati njëkk muy njëkk gaday jima hajjatin ñetti xaj ci la xaj jim ñett la ci namu wa kullun mbooleem hajja ya, fihi aji nek la ca ictilaaw ak kawe ak yëkkatiku li diini ñeel diina l'islam xaj ya dafa yëkkati diina l'islam ñetti la muy gaday gannaaw si ga ak ñaata yoon mu suma suma ba'du gannaaw si ga gannaaw bi nga xamé na ni def na gàddaay si na xijjatun benn xaj lii widaa ngir tàggatoo rek mooy xajatul widaa ci xatam juróom-ñeenteel ma jëm fukkeel ma moom ci lay xaj-xajam gi daggati coow na yuuxu na al ardu suuf indahu fa ajam indaha fa ajam googa wa samaawu asamaan ndax ci la aaya bi tàgg yonent bi wàcc ci al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu abubakar kontaan Euh, euh, saxaaba ya kontaan Omar ibnu Xataab ak ñëpp di manifester Aboubacar mi dégg waxi mag jooy ne bu diine ji xasee mat lu fi yonantu bi defati aaya bi da koo tàggee de yéen xamul li xew rek waaye lu néew la dundaat door a génn àdduna kon ñetti xajangoog yu xaj njëkk muy gàddaay yi gannaaw bim gàddaayee wenn yoon la xaj muy xajatul widaa su ko defee nag walahu aji nekk la ñaal ko xëy wax ji lu dul xajam ya umrun ay umra umra nag am na ñu ne ñeenti yoon la umra ñeen ne ñetti yoon waaye lu ci mën a am maam xarifa naa la xamee na min rabbi ci boromam maa yasaaw la ko soob ca umra ya arbaun ñeent xat saxad wér na wa qiila waxeef ñett la wali kullin ñeexal ne yi wala kumu ci ñett ñeenteel bi an solo min yi ci yére ñu ne ñett xamal nañ ko argument yu wér ñu ne ñeent la xamal nañ ko argument moo tax mu ne wali kullin aji nekk la ñeel képp ci ñaari xibaar yu wuute yi le ñett ak ñeent an baawu ak solo ay ay solo min ci yi min ci umraam yi le kulluha yëpp nag a tàbbal na ko fii si qiadatin ci weeru e, digg weeru digg yi tabaski ci la ci la ci la ci la tàbbal umraam yëpp xat xakaa nettali na za lii man ki nga xam ne lahu aji nekk la ñeel ko i'tinaaw ak sonne bi bi fi amri nabi ci mbiram yonantu boppam la gën a man mi nga xam ne sama xëy ak sama ngont lépp mooy liggéeyal yonantu bi maa leen xamal ne xumra mi yëpp bu dee ñett mbaa muy ñeent ci weeru digg la ko def loolu moom maa leen ko ci xamal ñu ne ko nag mu ne buddunahoo gëléemam ya fi ngi sal xaj ji ci xaj gu mujj gii di xajatul widaa bari na bari goo xam ne xadru sini fa tolloog xatam mu dund muy juróom-benn fukki xat ak ñett la dund juróom-benn fukki gëléem ak ñett moom la joxe hadaaya ca Kaaba ga ca xajam googa ñi reen di ko jox ko fuqaraaw yu masaakin yi loj ko. wakasa naka noonu mislu bu dund yi kem gëléemam yëla timit de otaqaawu jaam yam goreel ndaw bayti bu fasaa ah lii arab sax mënu ko wax bu dunuhu fii dal xajji qadru siniihi wa kaza mislu budunihi l utaqaaw kenn musu ko wax góor ak yàlla gi nee na at mi yonent bi jël na lu mag juróom benn fukki gëléem ak ñett def ko ay hadaaya ñeel fuqaraaw yoog masaakine ci xaj ga waaye gi la xaj tamit jël na juróom benn fukki jaam ak ñett goreel leen kon moom ma ngay feetu anniversaire u dundam ga ci gorel tay jam libéré len juróom ben fuk ak ñett reen loj lu ci ay gelem timit mu fuqara wi ak masakin yi a mu tollok hadim dundu kon nak xaj gaa ci yonantu bi umra ya ngok ci yonantu bi li ki dess nak yi la yeb dama la ko tuddal tudang mbeustal ci xare yak ñangal yak li ci haju dama la ko bëgg a farañ fànceel nag ci njàngaleem maam Khalifa benn par benn nga ban koo xam rawatina nag xaswatul badar waxoon naa la ne la xareem yi ñaar fukk ak juróom-ñaar la xare nag boo demee ci xaamuus bu ñu waxee xaswatu mooy xare boo xam ne yonentu dafa caa teew la ñuy tuddee xaswatu loolu la xaamuus gëm bépp xare boo xam ne généralu guerre ba teew na ca rek xaswatu lañ koy tuddee ñaar fukk ak juróom-ñaar la bu ñu waxee saraya muy jamoo sariyatin mooy boo xam ne moom demut waaye fa xeble waaye bu ko waxee ci baat bi bu ne saariyatu nag mooy ñàngal goo xam ne bëccëg la jug bu ñu ne sariyatu mooy ñàngal goo xam ne guddi lañ dem lañ dem euh, demi ngi bàyyi ko ci saraar ak yasri waaye buñ ko waxee ci adat ci boo delee ci xaamu sariyatu lim bi fuñ ko waxee rek ñu ngi ci namm lu dooree ci juróom fukki bakkan ba ñetti téeméer loolu la ñu tuddee sariyatu mawaahib ne sariyatu ñu ngi koy tuddee lu mat téeméer ba juróomi téeméer du ko paase bu xëppee juróomi téeméer ñu tuddee ko leneen bu ne manqab namm ko ci xare fuñ ko waxee mooy fanweer ba ñeent fukk bu xëppee ñetti téeméer jëm kaw dañ koy tuddee jëysu su matee ñeenti junne ñu tuddee ko jaffal bu matee téeméer jëm ba junne ñu tuddee ko katibatu yëpp jama ko katibatin bu nekkee armée bu rëy bu mag ñu tuddee ko alxamis kooku mooy jeysul azim kon xare yi noonu mooy seen tur yi pour nga mën koo xam waaye xareem yëpp boo koy jël am na ca xare bu ñuy tuddee bowaat moom la njëkk a moom la njëkk tudd waaye njëkkut ci xare yi nag ndax nee na fa ma xaasihi in turit dañ ko wax buwaat di ko wax bawaat waaye gannaaw bawaat am na bu mu tudd Usayru moom tamit tudd na ko waaye njëkkut boobu Usayru am na bu ñu tuddee abwaa abwaa nag moo njëkk ci xare yépp lu ko waral abwaa moom la ñuy tuddee xaswatu waddaan moom aw doj la wu nekk diggante Makka ak Madina xare boobu bi muy xew booba yonentu bi fukki weer ak ñaar la am Madinatul Munawara diggante doj woowa ak Madina juróom-ñetti juróom-ñaari maayil la ñii ne juróom-ñett waddaan sax léegi dëkk la bu mag ci dëkki màkk yi bokk na ci ndeyi dëkk yi di jidda mel taayif mel ko ni la daan mel tamit léegi boo demee xujjaaj yi baxe koo madina foofu lañuy ñuy bëttee jëm màkka xare bi ba muy xew yenentu ba muy dem ka mu bàyyi woon madinatul munawara mooy Saad ibnu Ubaadata ba ca yenentu bi dem juróom benn fukki nit rekk la ànd ak ci ay sahabaam booba li ko taxoon a jóg bëggoon a dajeeg waa Quraysh seen njëgg ma ak banni damrata yàlla dogal na ba muy dem fekk na jàll nañ xare sonnu taam waaye comme ngànnaayu na ba ci jaasi rek donte xeexut day tuddee ko xare ndax teew na ca fa ñuy war a xeexee bi ci tegu ci xare yi bokk na ci ci xare boobu ma wax la ndeysaanam bi nga xamee na ni ah Quraysh ko tax a jug ak Bani Damrata seen sang ba waa Bani Damrata di dumratu seen sang ba tudd mu jët Mujaddid ibnu Amru ad-Damriyu fa la ko fekk nag moom ca Abwaa mu jaayanteek yonent bi defak moom maanaam ne ko daal dootuñ xeex ak moom ci kaw suuf duñ dimbale tamit kuy xeex ci kawam yonent bi dem kon yoonam wa sooyut ñaar yi ko taxoon a jug benn ba rëcc na muy njëgg ma waaye beneen bi moom moo mujj na sotti ñam naroon a xeex ak dañoo mujj def ak moom musaalaha ñaareelu xare ba mooy xaswatu Usayra boobu xare mu ngi ko doon def pour ci benn palaas bu ñuy al ba ni mudd licc Usayratu tasxiir la su ko defee waaye place lañ ci namm waa bani mudlij ñoo ko moom du ko defee yonentu ba génn na fa ci weeru ndey ji koor booba fukki weer ak juróom benn la xamagu madinatul munawara ba muy dem diine ngi yokk juróom maanaam téeméeri nit ak juróom fukk la ànd ci ay góor xam nañu wax ne sax ñaar téeméeri nit ci muhajirin la ànd ak wiri gëléem dañ ko togo hanté bu ñi waré ba sonu dox ñeneen ña war ñeneen ña war sonu ñoo ngi def nona liko taxona juk yeb moy yépp ah njëggam qurayshima ci digënté makka moom fekk place bi ngi ci makka ak saam booba wa qurayshi seen njëggam halal ja dafa bari lool ba jéggi dayo ta ñoom halal yi yépp nga tëdd ci xarali saxaaba ya tëdd ci xarali yonent bi moo tax fu ñu leen déggee rek ñu ngi leen jéem a gàttandu pour jot seen xalal ya njëgg mi yonent bi doon gàttandu ji nag ca Usayra nekkoon na juróom fukki junney dinaar ak junney gëléem xam nga loolu ay milliards la juróom fukki junney ak junney gëléem ki jiite woon njëgg ma mooy Abi Sufyaan ànd ak ay góor góor yooye bokkoon na ci omar ibnul xaasi maxramatu ibnu nawfal ca la bokk seen limba ñoom góor ñooñu ñëpp doon garda njëgg ma ànd ak abu sufyaan fanweer lañ ak juróom-ñeent ba yonent bi di hegg place boobu di usayratu fekk na ñoom jàll nañ moo tax sonn ñoo xeex fekk na jàll nañ ñetteelu xare bi mooy bu nga fatxa ko ne moom timit doj la ci doj yi Juhaynata yonent bi dem na fa xare ji ci weeru rabiil awal muy weer wi juddu booba nag fukki weer ak ñett la defoon ma dinatul madinatul munawara bii moo jiitu bu ma bu ma wax léegi bii mooy ñaareelu xare bi ndax bale fukki weer ak juróom-benn la bii fukki weer ak ñett bu njëkk ba fukki weer ak ñaar la bu ñaar bu bii mooy ñaareel bi nag di fukki ak ñett bi ma la nettali léegi nag muy usayratu mooy fukki weer ak juróom ñett juróom benn kooku mooy ñetteelu xare ba lu ca mën a xam ba muy dem mi nga ànd ak ñaar téeméeri nit ci muhajirina yi di gaar lu njëgam Quraysh yi ma rek ba tey njëgg mi nag lu bëri woon la xalal yoon bi ñaari junne la ak juróomi téeméer ci ay gëléem ki leen jiite woon Umayya ibn Xalaf moo jiite woon njëgg ma ànd ak téeméeri nit ci waa Quraysh yi bi ko yonantu bi yëgee ànd ak ñaat téeméeri nit pour demoon di leen gaarlu ji yàlla dogal ba muy dem fekk na ñoom jàll nañ sonn ñoo xeex ak ñoom ba ñuy dem ci xare bi le drapeau bi sax du ibnu Abi Waqaas la ko joxoon ki bàyyi woon Madinatul Munawwara mooy Saad ibnu Muaaz moom la fa bàyyi woon ñetti xare yi le ñoo yi jiitu ñeenteelu xare ba lañuy tuddee safwaan safwaan mi gannaaw Usayratu la xew fukki fan rek la moo dox seen diggante li ko taxoon a jóg mooy gaarlu njëgg Qurayshi ba yonantu bi di dem kam woon ma diina mooy Zayd Zayd ibnu Xaarisata ak Kars ibnu Jaabir yàlla dogal ba muy dem tombeeg njëgg ma dem na sonnu ta dal ci seen kaw sonnu caa jot kon ñeenti yoon yonent bi génn na ko di gaar lu njëggam Qurayshi ma ñeenti yoon yëpp dañoo sooy soog nañoo jot ca njëgg ma moo xam bowaat la usayratu la abwaa la maanaam safuwaan la yile yëpp ñeent lañ yoo xam ne yooyu ko tax a jug benn sottiwu ci bi ko defee nag gannaaw xare yile bani suleymin ñëw na fa suleymun ca xare ya wax naa la ko xaynu xaax ca la surayqun ca la xarxarul kadri ca la xaaratu sawa mooy lokki goo xam ne dafa peeg ji barab ca waaye nag comme safwaan badara ci tegu dama lay njëkk a nettalil histoire badar danañ ci yàgg nag su ma ci bàyyee ko door ñëw ak yow ci xaswatu salimun door a ñëw ci Qaynuqaa door a ñëw ci Surayq door a ñëw ci Qarqarul Kudri door a ñëw ci Xaaratul Shaawa Badar gile daal mooy xare bi ëpp victoire ci jullit ñi ci la raayaay lislaam yëkkatikoo dootul daanooti ba péncam yàlla ci la yonent bi xamee victoire bu kenn mënta weddeeti ci kaw suuf mi ngi xew bisab àjjuma fukki fan ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci la xare bi xew ci weeru koor la tombeek booba yonentu baa ngi xam ma madinatul munawara fukki weer ak juróom-ñett muy dix dix-huitième mois bi la ci ñaareelu at dugg ci gàddaay ga fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor tombeek bi sab àjjuma waaye fukki fan ak ñaar nag lañ génn dëkk bi waaye xare bi moom mi ngi door a xew ci fukki fan yaak juróom-ñaar kon xam nañ juróomi yoon juróomi fan ci yoon yi avant ñuy xeex amul benn xare bu ko niru ci ngëneel ak ci victoire ak ci kom-kom xuday bii rek moo ko xaw a jege waaye fekk bii sax du moromam badru nag la ñuy wax lu tax ñu tuddee ko ko ñu ne teen la génn góor gu ñuy tuddee badru bnu quraish moo ko gasoon far tuddee ko teen ba place ba ñeen ña ne déedéet badru daal genn góor gu bokk ci banni damrata la dëkkee woon ca palaas ba ñu far askane ko ko ñu ne badrutu badru teen la tuddee nañ ko ko ngir seetluwaayu ndox ma ak wërngeeluwaay ga ron gim ron moo tax ñu tuddee ko ko lu ca mën a am ñaar fukki farsax ak juróom-ñett la moom ak dëgg diggante moom ak madinatul munawara li gën a wér nag dañ koy góoral badru lañuy wax waaye duñ ko jigéenal mudakkarun laa mu annasun da ngay wax ne haada badrun doo wax haadihi badrun yàllaa ngi koy tuddee ci téere bi alquran yowmal furqaan wa yowmal furqaani kon moom la alquran tudd na ko ne walla qad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillatun xare bii nag yonantu da doon dogaale ji njëgam abi sufyaan aa ah, ndax booba ñoom tamit ñoo yóbbaale li jullit ñi rekk yonantu bi yëg ne abi sufyaan war naa dëpp mu joxe ndigal ne daal nañu armewu dem dogale ji njëg ma ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñett moo doon seen lim léegi nag Abi Sufyaan naka jekk dafa daan wut lu xibaar di laajtelu lu ngeen dégg ci xibaaru yonantu beeg suñ njëgg mi bañ mujj xamal ko ne préparé na ngir dogaale sa njëgg mi ci la teggi aw yoon lu ye benn waay joo xam ne ku man liggéeyam la muy dam dam nu amri al-Ghafari yi yónni ko Makka ne ko boo demee ñëwalal Quraysh ne leen bu yex ñak seen halal ji luñu xam ci armée nañ ko armée wu luñu xam ci ay jambar nañu genn dogalé ñew ñew gatandu suñu li bam ba dam dam mu dem ba jup dekk ba ñaas bopam xoti yereem ya yok pour yok xay wi rek ndey jëk muy dem nag fekk na genn jigen gu xam gentu gu ñu atikatu gént na gentu go xam dal tiglo nako mu bàyyi ba suba mu dem nettali ko Abbas mbokkam mi ne ko loo gént mu ne ko benn waaju war géléem ñëw ba ci xuuru màkk mu yuuxu ne hee alaa infiru yaa ahlal xadri li masaarixikum mu wax ko ñetti yoon hee génn leen yéen waa xuur wi jëm ci seen nërmaluwaayu xeex ñetti yoon la ko wax ma gis nit ña dajee di top kàddoom googa di yuuxu mu waxaat ko waxaat ko ba muy ñetti yoon ma gis mu jël aw doj foree ko ci suuf sànni ko mu fettax waaye doj wooye dal xamul fenn ci suufu màkka ci dëkki màkka këri màkka yi lu dul ba dugg na ca amul benn néeg lu dul dugg na ca man daal xam naa ne nag lii daal mënumaa fi di gént waaye du doon jàmm waral sa nit ñi maa ngi la koy xamal yow abbas abbas na ko naxem sama ak yow xibar mom bu ko ñaar xasse deg rek bu bu génnee ci kiko ko xam kum dem rek dana siiw lolé sax bu yag bala won woon légui bo xelaté dara boko ko waxut ci sa bakkan sax ni botul gaay commencé ko euh, publier ci réseaux sociaux yi bi réseaux sociaux yi xom réseaux sociaux yi bañ xewé ba légui kenn tan beuti secret di sos rek ni léeg ñi monté ay wax ñi def montage jëm kuy wax di bay monté fenn kooka xam nga ne kon bu gisee luñ mën a annoncé wala mu koy tasaaree waxatuñ ko xaw ma réseaux sociaux lañ koy wax xaw ma réseaux sociaux yi xew ba léegi secret amatut loo waxtaan ak sam néeg boo xëyee gars yi publier ko ñoom ñaar a xam xibaar bi moom tamit Abbas dem waxtaan ceeg mbokkam Walid ibn Utbata xaritam la woon lool nag ne ko sama jigéen bi de gént gi gént jaaxal na wax na ko ko Walid ibn Utba moom kenn moom la ko wax moom te mu dem wax ko baayam kon ñeent yëgagum nañ ko ba ko ñeent ñi yëgee mu tasaaroo màkk ba xibaar ba xegg ci abi jahlin mu ñëw ci Abbas ne ko yéeg nag ñuy bëgga a lëjal seen góor ñi xoote bi yonantu mënuñ koo ko seen jigéen ñi commencé di xoote gént gonte ak xoote ak yonantu feen ko teg te seen yonantu bi mbiram yi ci gént la tàmbaree woon léegi nag yéen waa Bani Abdul Muttalib ay yonantu ngeen ba ci seen jigéen ña mu ne ko lan la mu ne tili ko gént ak xàttikat gu foogu toon na yëg na ko waaye nag maa ngi leen xamal dañ leen may ñetti fan ci li mu wax noonu bu dara xewut danañ bindab leetar taf ko ci kaaba ge ne antum ne ne daal antum akzabu ahli baytil fil arab ne yéen a dàq nar ci arab yi teqalikoon na ñoom ñaar mu mer lool moom Abbas jigéenam ña dégg nañ ko ñoom tamit mer ña wax ak si ko ne ko lu tax abu jahlin mile di ak ndaama boole ko nekk ku sew ruuj làmmeñam ñaaw wax la wax jile daloo ci kawam bu la sa deret xeñul ñun suñu deret xet nañu boo ko fajut ñoo koy faj moom tamit nag deretam xeñ ko mu ne bàyyil ma dem ñetteelu fan ba ni mu génnee dem wëri kaaba ga rek mu dégg abu jahlin na nga ma nga gis abu jahlin na ngay daw mu foonee dafa ko ragal moo tax muy daw ndeke abi jëlin dégg na loo xam ne ni kii déggut ko lu mu dégg dégg na dam-dam mi ñëw màkka yooxu ne yéen waa xurwe yi ñi fi dëkkee génn leen dem suqali seen xalal jaak seen bakkan ya seen bakkan yi mbokk ya gaaw leen lu toy mata lu toy mata am waalukum maa abi sufyaan qad arada laha muhammad maa ashaabihi wala ara an tadrukuha alxawsa aw alxawsa lii la wax rek ah, fekk abi jërin dégg na ko waaye abbas moom déggagul ko abbas dawi abi jëhlin yi soxlaal na ko abi jëhlin lii mu dégg tamit soxlaal na ko foofa rek ndeysaanam la màkka commencé ku ne jug ku mënta dem xam nga koo teg sa place pour mu demal la kenn ci màkka a ah, seen sang ya kenn desu fa xanaa abi lahab kese te moom ba mu dem tamit dafa hebal asim nu hisham ne ko kaay toog sama place xamee loon nga ma ñeenti junney dërëm léegi jëlal loola dem dem wutuma mu mu mu mu wattee la ko moo tax fekkee badar waaye bi ñëwee badar ba koy nettali waxoon naa la ko juróom-ñaari fan lañ ca teg mu dee ndax ka koy nettali dafa mer ko kooko song ko jabaram dimbali ko mu dal ci kaw mu dóor ko mu soppeeku góom boo xam ne day wàlle mu ju dee dee na lu mat ñetti fan lu dóor koo mën a suuf bañ koy suuf sax dañoo gas pax rek yëg ko ci kenn ñu mut koo jege doom yi sax dañ ko doon daw ci jàngoroom ja waxoon naa la ko ñëpp daw ke ñëpp dem ku mënta dem xam nga koo xebal umayyatum nu xalaf fa bëggoon a toog ndax mag la uqbatum nu abi mu'ayt ñëwal ko ak benn xànd da ko cam ñepp genn yow yow jigen nga bu ta bo tok fi rek tay tay te ñi lay ciurayal wala nga tok fi di jaaru bam ko waxe lol deretam xagn ko moom tamit mu mer ganna bam ne ko qabbahaka allah wa qabbah ma jita bi li ma waxa bon man kay doon xibaar daal tatak mer rek juk fek moom yontu ko ne bu demé fa fa dajek mom mo mu ragalon dem waye dem na de waye jigu ko de su ko defee umayatu mile boo gisee mu ragaloon dafa déggoon ci Saad ibnu Muaaz mu ne yonantoo wax ne anna sa aqtuluhu wa fi riwaayatin kaana umayatu qad samia min Saad ibnu Muaaz anna nabi salaa sallam qaala sa aqtuluhu qaala umayatu inna muhammadan laa yakdibu walam walam yasal mutaxawifan min dalika looloo waraloon mu ragaloon waaye mu gën a dem ba ñu dajee ñoom ñëpp waaj takk seen bagages yi war a génn pour dem xare ji ah nañ pour war a dem ñu ne dañoo ragal nag daal ñu ne ban bani Bakar te histoire wax na suñ diggante ñi ragal buñ demee ñi ñu wutuñu gannaaw dal ci suñ kaw jigéen ñi suñ xale yi jàpp leen jaam. Iblis sol mbubbam Suraqatu nu Malik ibnu Joosam mu ngi bokk ci asraafu bani Kinaanata ne leen ana jaarin lakkum maa ko garant dem leen min an taatiyakum kinaanatun min xalfikum min xalfikum doo am dem leen maa ko garant dem leen ñun ñoo maa leen garant demal ci lañ ci lañ nangoo dem fekk dafa ne xëbar rek bëgg ñoom ñëpp ngi dee ba ñaari mbooloo ya dajee ba tey iblis mu bon mi nekk ca sàppay musrikiina ya sol mbubbam suraqatu bnu malik suraqatu mi mooy sangab kinaana te yëgutoon na sa xare bi xew na téye ci loxob xaaris moom moom suraq moom moom iblis mi bu ci loxob xaaris ibnu Hisham waaye daal ba mu gisee malaaka yay wàcc jibril wàcc kaalahu mikaayil wàcc kaalahu téye laxab ak fas ga rek mu daw naka sa ala aqibayhi xaaris ne ko foo jëm mu ne gis naa lu ngeen gisul laay tay tay tay tay ngeen dee inni ara ma taraw na de départ ñoo tax bañ ñibbisee ñu ne waa xare bi ñu ne Suraaqa nu Maalik daal moo ñu trompé moo ñu rey fa bañ koy waxee ba mu dégg ko mu ne billaahi yëgu ma woon dem ngeen ba yi xeex yi sax yëgu ma ko sax xaw ma woon ne sax dem ngeen foofu ba xeex ba xeex ba di xam ndekee nag gannaaw si gi nag lañ door a xam ne ndeke Iblis a sol mu bëmm ma nag yi ba ñuy dem dañoo dem ba ca Kaaba ga ñaan ndeke ñaan kat dañ doon ñaan ci kaw yonent bi nekk ñaan nga dañoo ñaanal seen bopp dañoo wax ne yow yàlla allahuma unsur ahdal fi'atayni wa a'lal jundayni wa akramul xisbayni yow yàlla ñaari kuréel yi ka ca gën a jub yoon yàlla nga ko dimbale kookaay yonantu bi di ñaari soldat yi ka ca gën a yi ka ca gën a kawe yàlla nga ko dimbale kookaay yonantu bi di ñaari kuréel yi ka ca gën a tedd yàlla nga ko dimbale ndeke kookaay yonantu bi léeg-léeg ngay ñaan waral nit ndeke da ngay ñaan ñeexal ko la nga doon ñaan waral nit ki ndeke da ngay ñaan waral sa bopp moom nga ñaan ñeexal ko ba yonent bi dem nag war naa génn fukki fan ñaar ci weeru koor Omar ibnu Ummi Maktum la bàyyi woon ca Madinatul wara mu wara jiite jullit ña ci waxtu julli nekk mbokkam Bani Amir ibnu Luay booba nag Lansaar musu ñoo génn dem di xeexi xamuñu woon loolu xase dajeeg seen noonu di xeexi musul leen musuñ ko am mukk musta am lii mooy seen première fois loolu di door a am su ko defee nag yonantu bi yóbbu na armeem ba ba ca biiru abi utbata ca moom ak madinatu mun a war a benn mayil la mu commencé di xool ñu ndaw ña di leen fomm ne dem leen ngeen ñibbi ci la këm njëkk a mu nekk xale mooy barawum no asib ne ko demal ñaarel bi mooy abdullah ibnu omar ne ko yéen ay xale ngeen dem leen bu leen dem ba bu leen bu leen dem ci xare ba dem leen ngeen toog bu leen dem xam na ci juróom ñett ñoo xam ne nag ñoom dañoo toog ñoom tamit demuñu ñii dañoo feebarle ku mel ni sayiduna ousmane demut am roqiyatoo feebar gannaaw si gi sax la génn àdduna fekk yonentu ba nga badar moo ko defar sang ko sang ko jullee ko denc ko yonentu bi jaar ci xabru ba ñaanal ko talxatu ak saïd ñoom ñaar kenn demut yonentoo leen yónni woon ne dem leen ngeen rajul ma njëgam abi sufyaan mi ñoom ñi jaar di dox ba yegg place bu ngi tuddee xisaar bañ fa yeggee ñi nëbbatu ndeke njëgam a romb na leen te yëguñu ko ñu jotale xibaar ba ba mu hegg ci yonantu bi ñoom ñi départ dem Medina xamuñ na yonantu bi génn dem Badar ñu juwaloo looloo tax ñoom ñaar demuñ juróom ya ca des yëpp nag yonent bi xam ne dañoo toog demuñu ci waa ansaar lañ wax naa la ka juróom-ñett lañ wax naa la ñett ña muhaajiriin ya juróom yi ne waa ansaar lañ abu lubaan tam moo ca jiitu demul yonentoo ne ko dellul dañoo dem ba ci yoon mu ne ko demal Madina xaar ma aasib nu aasib nu addi al ajlaaniyu demut yonentoo ne ko demal ci ahlu lii nga nga nga nga huutuma fa xaaris nu xaatib demut yonentoo ko yónni woon mu war a bàyyee koo rawxaa jëm ci banni amrin ibnu awfu demut aa ah, xaaris ibnu sammata demut xawaarit demut xawaat xawaat nu jubayru demut ñoom ñaar ñile muy maanaam ah, ah, maanaam xaaris xaaris ibnu samata ak xawaat dañoo togg woon gëléem yàlla dogal ñi daanu ñoom ñaar ñëpp damm yonentu bi ne ñibbi leen xare bi nag xéeféer yi danañ mat junne à peu près ndax seen ñaari xale kenn ka sax nit ku ñuul la dañoo demoon ca teen ba di nàndali xam sa toog àll yu jàpp leen yóbbul leen yonantu bi fekk yonantu bi julli ci lañ leen laaj ñu ne ñun de dañoo yónni woon ndox rek ah ndax yéen da ngeen a ànd ak abu sufyaan wala da ngeen a ànd ak abu jahlin waaye ko ca kii ba ci ayir bi ngeen bokk wala ci nafiir bi ñu ne ñun de ci ci ci nafiir bi lañ bokk nafiir abi jahlin ñoo ñu yoon yónni woon ndox gaa yi dóor ko dóor yoon dóor yu métti laajaat leen ndax bokku leen ci abu sufyaan ngeen ñu abu sufyaan lañ ànd ak fekk yonent bi nga julli musulman rek ne yéen ba ngeen leen dóor a gut lañ leen waxoon mooy dëgg ba ngeen leen dóoree dañ leen a lañ leen wax du dëgg yéen dañ leen a fen ngeen bàyyi leen ñu wax leen dëgg ngeen dóor leen kenn du yonantu bi fekk moom xam na loolu te fekk xamuñu ko fekk ña nga bokk ca eh, nafiru abi jëhlin ba waaye dañ leen dóor pare bàyyi leen gaa yi xale ya daw lañ leen laaj na ñu ne moom ba laaj nañ leen ne waaw ana gaaya ñu ne ñu ngi fii ci xuur yi soriwuñ dara ñu laaj leen ne leen ñoom ñaata lañ ndax nuñ toll ñu ne hee nañ nag ñu laaj leen ñu ñoom ñaar à peu bët bu set yonantoo leen laaj lu ñuy togg ci gé gëléem lu ñuy lot ci gëléem pour pour di ko xewloo mu ne ko a àppa pare daal léeg-léeg juróom-ñeenti gëlëm léeg-léeg fukki gëlëm ci diggante bii daal ci lañu ci la ñu baagante ci la yonantu moom ko mën a ak calcul la mu ne téeméer eh, junne nit lañ mbaa junne yu manqué tuuti juróom-ñeenti téeméer daal jëm ba junne moom la ñuy toll moo tax ma wax la loolu kon nag loolu la leen wax ñi xamal leen ne noonu lañ demee de su ko defee ñoom ña ngay ñaan yonentu bi ndeysaanam génn ak ñetti yi nit ak fukk ak ñett ndax moo leen wax ne leen seen lim bi moo tolloog limu taaluuta ba ba muy dajak jaaluuta yéena tolloog limab maanaam rusulullahi mursaluna yi seen lim bi lii la moo tax sax wala siire ne seen tur ya ña fekkee badar ku ki def tawassul tuddu leen ñaan sa soxla yàlla faj ko yonent bi xol leen ak seen néew doole ga xoolal tey ni ñuy toll ni ñetti fas lañ am ñenn ngeen ñaar sax xam na ñu ne miqdaad moo ca am fas ak mursid ibnu abi mursid ñetteel ba ña ko wax dañ ne subayri xamoon na fas lañ xamoon ci gëlëm yépp juróom-ñaar fukki gëlëm la bi dafa doon toggoo bu waree ba ci kanam ñu àll yu war demeet noonu lañ doon toggoo xante ah faswa muy fasu miqdaat mo tudd mo tudon ay soub soubayru yu amna fas mom ak mursid ibnu abi mursid li lañ won ba dem yonent bi xol len juróom-ñaar fukki gelem lañ xam ñetti fas boole koog dañoo fàndaañu ñi ñu dal yiñ sol ñen ñaa nga rafle wa ñu yëre mu ñaan ñaanam gu siiw ga allahumma innahum khufatun fa ahmilhum sa gaa dañoo fàndaañu de yàlla dëgg dëgg seen tànk yi dox yow yàlla yàlla nga sëf leen bu ñuy ñëw yàlla nañ war mu ne allahuma innahum uraatun fa aksihum yow yàlla dañoo rafle yàlla nga hoddu leen allahuma innahum jiyaaun fa asbihum waaye allahuma innahum aalatun fa agnihim yàlla nangu na ñaan nga mbooleem ña doon dem badar boole koog di dox ba ñu ñib dañoo war mbooleem ñi nga xam ne dañoo ñàkkoon yére ba ñu ñib si dañoo xodd du bëri yére ba xam bay maye ña xiifoon ñëpp dañoo regg ñi ñàkkoon ñëpp dañoo xoomal kon ñaan nga yàlla nangu na ko départ nañ yonent bi jël na drapeau ba benn ba nekk ca kanam mu jox ko mu sonn Umayri moo koy féete kanam nag ah, Mus'ab moomu doomi Hicham la doomi Umayr la Umayr doomi Hicham Hicham ibnu Abdu Manaaf Abdu Manaaf ibnu Abdi Daar amaan na yeneen ñaari drapeau yu ñuul benn ba Ali ibnu Abi Taalib la ko jox benn ba nag waa Lansaar la ko jox gaa ya départ nañ ña ngay toggoo gëléem ya juróom-ñaar fukki gëléem lañ xam yonent bi moom dafa toggoo xoon ak Aliyu moom ak ak ak Mursid ibnu Abi Mursid toggoon ak mom teral la len wax ne ma antuma bi aqwa ala al masir minni wa ma ana bi aghna al ajri minkum hepp len ma kartan ci mana dox kon nak nay dox di war ñeeni dox di war ñi haylanté ñi hawanté waye man timit gën len ma bëgg yool du ne dama doy lu yool walis len li ngeen bëgge yool la bëgg yool ta dox bi yoola ngi ci kon nak dañ koy haylanté rek suma waré war war ngeen dox su ngeen waré war war man ma dox mu jeex dox nañu ba jege fu ñuy tuddee safraa ci la yonent bi yónni bas-bas bas-bas muy mu bas-bas mu am rëy aljuhaniyu ak addiyu sarbiyu aljuhaniyu ne leen dem leen ca teen ba ngeen gëstul ma ay xibaar maanaam ci njëggam Qurayshi mi ñoom ñaar dem nañ yësal seen gëlëm seen gelem nga ci wenn tundu wu jege badar di sàcc ak déglu ñi deg ñaari jébé ra ngay waxante ne way waay lebal ba bu suba mba gannaaw suba ci lay njëgg mi ñëw ma man ci liggey fay la kenn ka nga wax morom ma ne ko innama tariddu l'iiru ghadan aw ba'da ghadin fa a'milu lahum thumma aqdiyaka thumma aqdiyaka thumma aqdiki su ko defé ma man la fay jigen lay wax ak suma ma ma def ko rek fay la mu ne ko d'accord ñoom ñaar ñibbi nañ wax nañ yonantu bi ne ko njëgg mi suba mbaa gannaaw suba dégg nañ ko ci ñaari jéebéer indil ko xibaar bi Abi Sufyaan am na xibaar teggi na dafa ñëw rek ba muy xegsi ci Badar rek dafa teel a ñëw suba lañ doon xaar ak gannaaw suba rek mu far ñëw ci bis bi ba mu ñëwee mu laajte ndax gisu leen fii ñenn ñu fi ñëw fii di gëstu de ci teen bi mu fekk fa ay nit ñu ne ko gis nañu fi ñaar ñu war a gar gawar ñëw nañ daal ba si kanam ñu dawal dem mu ne leen waaw fu ñu toogoon ñu ne ko te tund wale mu dem fekk fa ay nefere ay cabinet yi gëléem mu toj ko fekk ci ay saal mu ne ñi yasri ba lañ bàyyi ko booba tuddeegul madinatu munawara yonentu bee ko tuddee noona ñoom yasri ba lañ daan wax booba dafa yonentu bi demee la tudd madina mu ne ñii de yasri ba lañ bàyyee koo de ci la gaaw rek ñibi fekk dam-dam moom dem na ba yóbbu xibaar bi ñaas boppam xotti yéreem ya ku mën a yokk xay la yonent bi nag bi mu ñëwee ba safaraawu googu mu kàmpe taxaw wàcci ci wenn xuur ñëwaat ba ca kanam mu depaaraat ba jege ci wenn xuur bu ñu tuddee sifraanu xuur la woo xam ne ku bàyyee ko misra moom ngay bu booy dem di haji yonent bi nag war a kàmpe nag dajale gaayam yi nag wara waxtaan ak ñoom ne leen waaw dañoo ñëwoon ngir dab si njëgg mi sama xalal lang ca seen xalal lang ci ñenn ñëpp ñu doole jël ko yàlla xamal na ma ne njëgg ma raw na Abu Sufyaan dem na léegi nag yéen njëgg ma ak bakkan ya lu ngeen ca gën a bëgg xam nga nit ñi xalal dafa sax ci xol ñoom ñëpp yooxu ndeysaan ñu bari yooxu ne ko njëgg ma lañ soxla yonentu muy xalal ja fal iiru ahabbu naa min an yi waaye waaye yonent bi jot ca xalal ja moo ñu gën jot dajeeg suñ noon yi mu ne yàlla dëxal na ma ñaari kuréel yi benn xiir ba mbaa nafiir ba bu ngeen ca gën a bëgg gaa yi ne ko xiir ba lañ bëgg mooy njëgg ma yonent bi ñëkkal xarxaramam laaj leen ko ñu waxaat loola mu ne leen njëgg ma raw na ñu laajaat leen ko ñu waxaat loola Aboubacar a mujj jël kàddu wax wax ju rafet Omar ibnul Xataab jëlaat kàddu wax wax ju rafet Saad ibnu Ubaada te jël kàddu ne ko yow yonent bi digleel loo digle ñu def ko boo ne woon nañ dem ba ci àddan wallaahi ñu fekk la fa boo yóon boo doxoon ne àddan lañ jën àddan Ibyana nit la woon ca nit ñu njëkk ña billaahi boo xoote woon foofa ñu fekk la fa ci la miqdaad ñëw ne ko yow yonent bi am di li ma amaraka laa li la yàlla digal wéyal ko fa nax nu maaka ñun duñ wax la banu israël waxon musa idhab anta wa rabbuka faqatila inna inna huna qaidun duñ ko wax lo dig la ngi def ko yonentu bi nak xelam doora dal mune a ah, ndeg ma nak rawna waye nak euh ah, a ah, nafir ba ngay ñew abi jeul na nga na la gennuna and ak nitam ñu wara ñew ñu wara a badar kon fokk xeexam yonentu bi départ na ba jégué badar nak ci la yónnee Ali ibnu Abi Taalib ak Zubayr ibnu Awaam ak Saad ibnu Abi Waqaas ne demal leen ma ca teet ba ngeen gëstul ma fekk nañ fa benn xale bu góor nit ku ñuul la bokk ci banni xajaaj turam dëgg mooy aslam ak beneen xale bu bokk ci bani aasi su ko defee ñu jàpp leen ñoom ñaar ña ca def daw fekk ñoom ñu ngi jógee ko ci njëggam ñu nga bàyyi ko ca euh, kuréelab abi jëxlin ba ba mu ñëwee nag yàlla dogal ñi laaj ko dóor ko mu wax comme waxoon naa la ko yonent bi wax leen fekk yonent dañoo fekk muy julli ki njëkk a ñëw nag ci musrikuna yi mooy ajiir ba mu ñëwee tamit gaa yi jàpp ko ba ko ba ko gaa yi yëgee nag tiit nag waa makk yi seen armee ba tiit ne hee jàpp nañ seen seen seen seen ndaw la ñaar ja tamit jàpp nañ leen ñu ngi tiit bañ leen dóoree nag ah ñi laaj leen ñu ne ñun de ñu nag abu jëli na ànd gaa yi dóor leen ndax am leen abu sufyaan abu sufyaan la ñu ànd ak yonent bi sëlma rek ne leen bañ lañ leen njëkk a wax te dóoraluñ leen mooy dëgg ba ngeen leen dóoree ala kulli lañ leen wax du dëgg yàlla xamal na ma lépp ñoom nag ñoom lañ laaj fu gaay a campé ñi wax leen ko ñi laaj leen ñaata nit lañ àpp pare ñu ne ko juróom-ñeenti gëléem lañu reen lañuy loj léeg-léeg ñi laaj leen nag yonent bi laaj leen kan ak nekk ca ñoom ñoo ko yee sang yaa ngi ca nag Utbatu bnu Rabi'a ma nga ca Utbatu bnu Rabi'a taa nga ca Shaybatu bnu Rabi'a taa nga ca Abul Buxtari bnu Hishaam ma nga ca Hakim bnu Hishaam ma nga ca Nawfal bnu Xuwaylid ma nga ca Haaris bnu ma nga ca Tuaymatu bnu Adiy ma nga ca Nadir bnu Haaris a nga ca Samaatu bnu Aswad a nga ca Abu Jahli bnu Hishaam a nga ca Umayyatu bnu Xalaf a nga ca Nubayhun ak Munbihu di ñaari doomi Hajjaaj Suhaylu bnu Amrin ñii ñëpp ña nga ca ah Abu Sufyaan rëcc na dem na yegg na Màkka mu dégg na gaa yaa ngay génn dem di xare mu ne dëpp naa def dëpp leen innakum innama xarajtum li tamnau amwaalakum wa rijaalakum wa qad najaaha allahu taala farjiu seen xalal ji moo leen taxoon a génn ak seen nit ñi muy ñun ñii mucc nañ dëpp leen Abu Jahlin ne déedéet ñun de duñu dëpp lu dul dañoo xegg Badar ba araab yëpp dégg na xegg nañ fa bu ñu fa demee naan sàngara suñ jéebéer yi wayal ñu ba ëllëgee ñëpp ragal ñu wax na dëgg jéebéer yéen yaakaaroon ñi wayal leen dañ leen a fay yuuxoo ndax dañoo dee ñi mujj dëjjatu sàngara sañ yaakaaroon naan wax nañ dëgg naan nañ kaasi dee su ko defee nag arab yi ñu bëggoon ne dañoo bëggoon ñu dégg leen ne xam nañ ndam dañoo dégg na ñi ñu torox ñu torox lañ axnas axnas ibnu shariq moom dafa allié woon ak bani zuhrata fekk ña nga ca jox fa mu ne yéen banu zuhrata seen xalal ji mucc na seen gaa seen waaja demoon muy maxramatum nawfal mucc na bu leen dem fenn de billaahi bu ngeen demee da ngeen gis diggu bëccëg bu ngeen demee dee moo tax kenn demut ci ñoom ñooñu kenn demut ci moo tax Abu Sufyaan ci la waxee ne yaa bani suhrata laa fil iiri wala fi nafi <laughs> wax jooju moo ko njëkk wax ci arab wax ju fasaa yéen ba nu soxrata bokku leen ci njëgg mi bokku leen ci kuréeli xeex bi armée bi ndeysaanam nag ku ñuy tuddee taalib ibnu abi taalib moom ak Quraysh yi wax a génn ci wax ju sew rek ci la ba banu Haashim ne leen wallaahi bu ngeen génnee dem di xare ji tamit seen xol yi ku ko xar yonent bi la cay fekk moom mu daw mu ñibbi dem Màkka wax ne amaahum yaxzuuna aba taalibi fi usbatin muxaalifin muhaaribi fi maqnabin min hadihi almanaqi maqaanibi fal yakun almaslubu gayra saalibi wal yakun almatlubu gayra taalibi léegi nag gaa yaa ngay dem li la way Makka Quraysh départ nañ ba wàcc ci xuru ñu tuddee Udwatul Quswa foofa lañ wàcc kekk la yàlla nattoo leen yàlla ji taw mënatuñoo parce que génn mbir mi métti ci ñoom saxaaba ya ñoom nekk ca beeñ ba yalla ja taw fekk ña ñoo gént tëdd nelaw ñu ci hëpp gënt seen mën yu gën yalla ja taw ñu sangu gëna sawar xam nga beñ lu yalla ji gëna taw dang ci gëna mëna dox goon yalla dafa leen préparer terrain bi ñom ñe ñom yalla yàqal leen terrain ba xuur mom bu tawé borom day xus ndox bala gën ndox ma sax son beñ nak mom bo ci nekk yalla ji taw bo ci dox mom day melni kuy dox ci kaw tali rek ñe bañu gën ak bi xaw nañu dé yonentou bi xol leen ñay ñew ñoom waa qurayshi mat junney nit wala yu manqué tuuti mu ne allahuma inna hadihi quraysh aqbalat bi xaylaiha tuxaaduka wa tukadibu rasulaka allahuma nasratuka allati waadtani biha allahuma fa axzilhum wala tansurhum ne yow yàlla quraysh nga ne di ñëw di daagu noonoo weddi sa yonantu bi yow yàlla sa ndimbal si ma defaloon jox ma ko yàlla nga toroxal leen bu leen dimbale yonantu bi gis na utbatu bnu rabiata mu nekk seen kanam mu ne su fekkee mbooloo mais fekk xam nañu xiiw moom kenn moom de moom moo ci xamee xiiw utbatu bnu rabiata fekk ma nga war gëléem gu xonq yonantu bi ne in yakun fi ahadihim xayrun fa inda saaxibil jamalil ahmar yàlla dogal na quraysh yi wàcc nañ ba ñëw am na ci mbooloo mu ñëw ba ci déegu fi yonantu bi nekk noo ngi nàndal fa seeni gélém gaay bëgg leen a dàq yonantu ne baleen leen amul kenn ku fi nàndal sa gélém lu daga dee ñoom ñi doon nàndal seen gélém yi foofu yëpp a dee nam xakim nul xisaab moo ca mucc moom jébbalu na gannaaw si rafetal ak njébbalam motax bu mboko mer merlo rek buy gën da ngay dégg mu ne wala si najjana wala wala si najjani yawma badrin maa ngi gëñ ci yàlla mi mu musal Badar manoon naa dee de xéeféer ya yónni nañu Umayr ibnu Wahb aljumaxiyu ku rëy xelaat la ku mën a calculer la mu ñëw ko demal nga compter ñu jullit ña ñaata lañ mu ñëw xool wëndeel façon wa dawalaat xoolaat daal di dem ñibbi ne leen à peu près daal ñetti téeméer la ñuy doon mbaa ñetti téeméer yu manqué tuuti mbaa mu teg tuuti ku mën a calcul la waaye la tuuti tuuti. maa ngi leen di xamal yéen waa Quraysh yi ne wallaahi li ma gis albalaayaa taxmilul manaayaa wallaahi toskare guy xen waaye dee laa gis de deret yu ñu riixoo laa gis de ñii ma gis xamuñ benn wéer waay lu dul yàlla seen jaasiya billaahi bala ngeen rey ci ñoom kenn ñi rey ci yéen ay téeméeri téeméer léegi nag mu ñor mi lay wax wax jile ci la ñëwal utbatu ibn rabiata mi seen kilifa yore woon seen drapeau ba waron fasu wu wa ne ko ya aba walid yow de kilifa nga ta yow dañ lay top lo wax fi gaay dañ koy def kayma kayma allah kaay la suma sañon dal ngeen dem signé yonentou bi ben pat baña waye bu ngeen du ngeen ci am ndam ma ngi koy xamal mu ne ko xana nga dem wax ko abu jehlin ak yaayam ah mu dem ci abu jëhlin waxi ko ko abu abu jëhlin ne ko yow daal waxoo waxi dara fekk ma ngay defar mbubam ko ak maam di nàmm di nàmmu jaasim ja mu ne ko bu ngeen dajeek Muhammad torox maa la ko wax su ko defee tamit xutbatu daxaw def discours ne yaa ayuhan naasu innakum wallahi in laqaytum muhammadan wa ashaabahu laa yasaalu rajulu yanzuru fi waji rajuli yakrahu nazra ilayhi ويستوجب أن يقتل ابن عمه وابن خاله فارجعوا وقلوا بين محمد وسائر العرب فإن أصابوه فذلك الذي أردتم وإن كان غير ذلك كفاكم ولم تعترضوا له من عضبة ملي ورجلهم كقنق وجل نكسي عن كلام من لين قمليين وقريشي بلين قيحل ينتبه أقم بولو حبمي بغن كدفه كان دانا نقول مرمم سج ينيب بوك kenn ci yeen man na ray doomi bay tëxam ba mu ray nijaayam doomi nijaayam ba leen koog arab yi bu ko arab yi rayee bu boobaa lu ngeen beggol bu ko arab yi rayut tamit fekk timit garlu hu len ko ngeen xam jam hakim mi konten konté ñewal abil la jahlin fekk ko muy préparé bam ko ngam ma mu ne ko tee ngeen signé ak yonentou bi patata ngeen ñibi su ko defé wax ko li otbatu wax ak discours otbatu ba yamu mu ko mu ne kooku dañ koo njabar rek ba mu gisee saxaabaa yoonam tubeeg nangama rek ci la teqali koog sagoom waaye wallaahi man mii kenn mënuñoo teree xeex ba te yàlla xattee suñu diggante xattaa yaxkuma laahu baynana wa bayna muhammad léegi nag abu xusayfa moom tabaarakallaahu ibnu utba dafa jébbalu ànd ak yonamtu bi te doom la woon ca doomi utbatu moomu ñu ne nag li doomam ji jébbalu woon rek bañ mu boog ne dañ koy rey moo tax muy wax loola Utbatu ne ko wallaahi yow abi lahab mi nga xam ne xaw ma man lañ njabar waaye da xam yow lañ jabar wala déet yow mi nga xam ne foo toog sa njëkkeekaay yaa ngi wëlis wax yu ñaaw la ci arab fekk abi jëhlin abi jëhlin laay wax dafa ne woon feebaru baras ki njëkkeekaayam ya daan ko riixee nag gëtt ak cent mu fekk nag mu foogoon ne kenn xamu ko nekk gaa yi xam nañ ko abi jëhlin mer daal di yónnee ci ibnul hadramiyu ne ko boomal ñu commencé xeex ba nag commencé gaa ya yuuxu mu ne waa ammaahu fa xamiyatil xarbu su ko defee gaa ya départ xare ba départ booba waa muhaajiriin seen seen drapeau bi Musab nu Umayr waxoon naa la ko moo ko yore waa Xasraj amoon nañ drapeau Xabaab a ko yore woon Xabaab nu Muntir waa Awsu seen drapeau bu Saad ibnu Muaaz booba nag ku bokk ci muhaajiriin sa mandarga mi ñu lay xamee rek bu ñu la waxee maanaam yaa bani Abdurahmaan nga xam ne kooka muhaajiri la. suñ la waxe qasraj sen shi'ar ba moy ya bani abdillah ñu xam ne loolu wa wa waa waa wa booba awsu sen shi'ar moy ya bani ubaydillah ni lañ doon dakantale ku ko wax lañ xamne kefa la bok su ko yi ñetti drapeau lañ am ben ba nga andak abi usayrul umayri benen drapeau ba andak nadir ibn harith ben ba andak ibn abi talha, ñom ñep ci bani dar lañ bok ba ñu demee dara xeex ba war a commencé nag ñaar ku ñu tuddee aswad ubnu ah, ah, ah, abdul aswad ubnu abdul aswad al moom dafa nekkoon dana dem ba ca déeg ba mu nàndal fa ba muy départ na ma ngay dem ah am surtout traversé ko dagg tànk ba muy dara ngoog dam doon def ba yegg ca déeg ba nan difa nàndal ñi ray ko foofu lañ ko mujj rayee su ko defee kon nag xare baa ngay jëw ki njëkk a génn ci xéeféer yi mooy Utbatu bnu Rabiata ak Saybatu mbokkam ma di Saybatu bnu Rabia Waliid bnu Utbata ñu ne léewoo génne leen ñett ñett a ngi nii ci ñun xam ñett ñu génn ci lansaar war a ak ñoom ñu ne ñi laaj leen yéenay kan ñi tudd leen ñu ne yéen duwu leen seen ñu suñu nawle dellu leen yonent bi ñu ne ko mu ne labbayka mu ne génneel ñu suñu nawle yi yonent bi ci la ne ana Ubaydatu génnal jugal ana Hamsatu génnal ana Aliyu génnal ñoom ñett génn nañ Ubaydatu bnu Xaaris moo ko Hamsatu ñoo léewoo Aliyu nu Abi Taalib su ko defee Utbatu kon Utbatu laa tabaarakallaahu kuma moom mag la woon mag la woon moo xam ne xam ne juróom-benn fukki ak ñett di jullit moo léewoo Walid Hamsatu ak Saybatu yàlla dogal daal yàggut dara xamsatu ak saybatu xamsatu rey sayba yàggut dara àlliyu rey walid xutbatu mile ak ubaydatu seen ñaari jaas yee laalante kenn ku ne gaañ sa morom gaañ bu metti bañ ko gaañee nag àlliyu xamsatu xàq si ñëw dimbale ko ñi rey xutbatu kon ñett ñi ñoo njëkk a génn ñett ñi le ñett ña génn ki ñoo ñëpp dee nañ xamsatu rey na kam léewoog taxawut gisul mu wan ko bi diggu ba cëg muy saybatu aliyu rey na walid datu kam doon léewoog muy utbatu dañoo gaañante ñaar ñële ñëw rey na ñaar ñële ñëw xàkk ci kawam rey ko su ko defee nag utbatu mi leen ndeysaanam gaañu ba métti ñi leewu ko bañ ko leewoo di ko yóbbul yonent bi ca lay wax ne fa in yaqtau rijli wa inni muslimun wa arju bihi ayshan min allahi aliya wallaay buñ daggee sama tànk bi comme julli laa rek alhamdulillah maa ngi yaakaar gannaaw ak dee dund goo xam ne gu kawe lay doon yaakaar naa sama borom xoddee ma mbaxana xoddee ma yére yoo xam ne yére yu tedd lay doon ñaari léewa yoo la alquran di ñu ne haadaani xasmaani ixtasamoo fi rabbihim ca sama borom commencé ko nettali tabarakallahu départ nañ nak yagul dara rubatu génn aduna dañ ko mujj sul place bu ñu tuddé safra ba muy génn aduna juroom ben fukki at ak ñett la am mag la woon yonamtu bi mom maga tey jaasi je di xemale sappé yi léeg-léeg moy diw gënal diw duggal def di di di di di tek manam armée bi niñ wara taxawé ma ngay wo sawad ibn mi nga xam ne mooy ba bani Abdi Nadaar Abdi Daar ndeysaanam ñi dëbb ko ca moom tamit gaañ ko ci biir mbir maa ngay dem ma ngay wax naan mettital nañ ma waaye gëñ naa ne yow yàlla dafa laa yónni ci dëgg ci maandu xare baa ngay dem ña ngay dem ña ngay rayante ba fa ñu mujj daal bi xare bi jeex jullit ñi rey nañ juróom ñaar fukk ci xéeféer yi yàlla dogal na jullit ñi ah jàpp nañ juróom-ñaar fukki jaam ci ñoom ñun fukki nit ak ñeent lañ rey ci ñun ci la yonent bi xare ba métti mu tibb ci suuf ñaan ah xeer ya sàbbaal mu sànni leen ko képp ku saan wa dalawoon rek rey nañ la boo deexul ci xare ba rey dee nga dee xare uut yàlla ne ko wamaa ramayta id ramayta walaakinna laaha ramaa malaaka ya wàcc di ko xeexle su ko defee nag ndeysaanam fii la ñu mujj ah, fii lañu ñu mujj de su ko defee nag yonent bi ku baax la fii la ñu mujj de ñu mujj rey leen de ah, ah, su ko defee nag am na ki ñoo xam ne dañ leen a jàpp waaye yonent bu leen kenn rey fa man laqiya ahad min bani hashim yonent bi ne xare bi nak limuy metti metti ku dajeeg banu hashi bu ci ray kan bu ko kenn ray ku dajeeg abul buhtri bu ko ray ndaysanam yonent ku bax la ndax bul fatne moko moo def euh, sahifa bobu ñuy ko ambar goga bokkoon na ñi ko don firi su ko nak ah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam abi buhtri ne buñ ko ray mo taxawee woon ña firi ko téré booba ñu gaay ak ta jangon nañ ko sikru saxiifa ba ah boog abi buxtari nag ànd nag benn xaritam bu ñu góor gu bokk ci bani lays turam mooy janaadatu janaadatu janaadatu bnu xatu abi buxtari ne bu leen ko rey sama samil la sama samil la gaa yi ne ko yonent bi terewuñ ñu ñu rey ko wallaahi yonent bi yow lañuy waxoon rek su ko defee nag kon. آه، لم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله قال إذن لأموتن أنا وهو جميعا لا تتحدث العرب أني تركت سميلي حرصا على الحياة من يكون نك بين هبو راي نيو نيار دوما في باي عربي واخني دنج ما راي دنج ما دنج ما موسل بايكو موم موتاخ من لن يسلم ابن خرة زميله حتى يموت او سبيله kon nag noonu la mbir ma continuer di dem loolu la mu kinal dem ku ñuy tuddee kooku mu doon wax nañ ko musal ndeysaanam al mu siru ma ngay rajas an al mu gisiru wa usli man balaa ataxanu bil xirbati xatta tansani wala tura mu gisiran yafri fara abdurahman ibnu awfu ma nga nekk ak umayatu bnu xalaf la woon falammaa kaana ma badar mu ne ma romb ko fekk ma nga taxaw ànd ak doomam ja Ali fa hal laka mu ne ko ndax ñeexal na la fii ci man ndax soxla nga si man dara fa ana xayrun laka min haawulaahi l adruci maa gën ñi lay sol seen mbubbu koŋ yi fekk na booba nekk na fa man ay mbubbu koŋ yu ma yëkkeewoon ma sànni ko ko ma jàpp maanaam ca loxoom ba ak loxob doomam bu ko defee nag fa man rajulu minkum al muallim bi riishi naama qultu zaaka hamzatu bnu abdil muttalib fa qaala zalika alladi faala bina matra lii ngeen xam ne moom ngeen gis ki ñun ñoo ko def ci ñun kon nag gis nga xare beeg fi mujj ndeysaanam daal jàpp nañ ci ñoom juróom-ñaar fukk rey ci ñoom juróom-ñaar fukk ñu ca des daw seen kàngaam yépp ci ponkale ca lañ leen rey bañ leen jàppee yonantu bi nag diisoo ak Aboubacar duñ leen di def mu ne ko sa nit ñi lañ sa nit ñi lañ xaw ma ko waxlu ka say nit lañ ah mu laaj Omar mu ne nañ leen rey saboote nañ suñ diina ji dese suñ xel yi lekk suñu xalal yi yonantu bi noppi mu jigéen nag mu dem jëfee li Aboubacar wax laaj leen alal fekk Aboubacar ne ko comme diine ji néew na doole dañ leen laaj. waaye dañoo toog rek aaya ja wàcc Aboubacar di jooy yonent bi di jooy Omar ne lii le wax leen ma ko su ma ko mënee jooy su ma ko mënul jooy jooylu moom la aaya ja ne maa kaan li nabiyyin an na lahu asraa hattaa yusxina fil ardi ba laaya ja jeex ndeysaanam foofu lañ mujj nag kon dëgg kenn mënta xeex ak moom sama gaay yi fii lañ mujj ak gaay bon ñi ko defee nag kon rey nañ leen ba yàlla ni leen da ngeen leen waroon rey qul huwa min indi anfusikum li ngeen def ni seen bopp la baxee ko su ko defee nag muy jàpp euh, euh, njot gi waaye nag yonent bi dafa waxoon ne ñi mënul joxe njot dañ leen jox ay xale ñi leen jox ñu jàngal leen ay nit koo jàngal ba mën a bind fer ji rek moo nekk sa njot comme xamoo loo njote su ko defee nag fii lañ mujj booba daanaka njot gana boo ko doon boo ko doon à peu près kenn ko ne mënoon joxe boo ko doon évaluer ci suñ xaalis ay million yu dul jeex la nga xam ne kon jàng mos ta yomb te loolu waxoon naa ci waxtoon naan naa ci waxtaan wu yaatu su ko defee nag kon damay ñëw ak yow ci xaswatu bani suleymin